réalisé et présenté en français et en wolof par Mamadou Chérif Diop. Naouzu billah mina shaytani rajim. Bismillah irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi. wa min wa man tabiyahum bi imaanin wa ixsaan ila yawmi ddin assalaamu aleykum chers amis auditeurs par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala nous sommes ensemble en ce jour béni en compagnie de notre frère Moussa Mbaye pour remercier Dieu de nous avoir donné l'occasion de vivre jusqu'à cette année nouvelle. Louange à Dieu, subhanahu wa qui a établi la nuit et le jour pour ceux qui veulent se rappeler ou le remercier, comme dit le Coran. mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah ñu dellu sant yàlla subhanahu wa ta'ala mi nu wërsëgal ndaje bi ñu daje ngir sant yàlla ci xéewal gu mu defal ci may ñu ñuy dund ba fekke at mu bees bon tabaraka allazi jaala leyla wannahaara xilfatan liman araada an yazakkara aw araada shukura sell na màgg na moom yàlla mi def guddi ak bëccëg di wuutante ngir képp ku bëgg jub ak képp ku bëgg sant sa borom amis notre question revient pensez-vous que ce que Dieu subhanahu wa ta'ala n'a accordé à aucun prophète ni à sa descendance pensez-vous qu'il l'accordera à une autre créature le prophète Mohammed paix et salut sur lui a demandé à Dieu subhanahu wa ta'ala de pardonner aux mécréants et aux hypocrites. Dieu subhanahu refusa. Et pour le consoler, il lui rappela le cas de son ami Abraham, paix et salut sur lui. Abraham avait demandé à Dieu subhanahu wa ta'ala de pardonner son père comme il l'avait promis à son père lorsque ce dernier le chassa de chez lui. Mbokk yi suñu laaj bi lañuy samp ba tey rekk ndax yaakaar nga ni lu yàlla defalul benn yonent defalu ko njabootu yonent googu dana ko defal beneen bindaafoon yonent bi sallallahu alayhi wa ali sàkku na ci yàlla ngir mu jéggal naafeq yi yàlla gàntal ngir defal ko nag mu fàttali ko xaritam ba di ibrahim alayhi salaam ba mu ñaanee yàlla tinu ko ci papaam ngir lu mu digoon papam fekk papam sax dàq na ko kër ga le Coran le dit dans la sourate Mariam mentionne Abraham dans le Coran il était un véridique un prophète quand il dit à son père ô oh père pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas ne voit pas et ne te sert à rien ô père j'ai reçu moi ton fils, une connaissance que tu n'as pas. Suis-moi donc et je te mettrai sur la voie droite. Père, n'adore pas le diable, car Satan a désobéi au Seigneur tout miséricordieux. Père, je crains qu'un châtiment provenant du miséricordieux s'abatte sur toi et que tu deviennes définitivement l'allié de Satan. Son père lui dit, Abraham, est-ce que tu mépriserais mes divinités xoolal mu ne yonent bi alayhi salaam tuddal Ibrahima ci téere bi moom yonent la woon te ku dëggu la woon bis dafa ñëw wax ak papaam ni ka li ma taabudu maa laa yasma wala yubsir wala yuxni anka shay'a bàyyi lu tax ngay jaamu xiram yii bant yi ñu yett nga xam ni duñu dégg duñu gis amul lu ñu la benn njariñ yaa abati inni qad jaani min al ilm ma am naa ci xam-xam loo xamul fattabi'ni ahdika siratan sawiya topp ma ma teg la ci yoon wi ni xocc jëm ci yàlla yow bàyyi laa taabudi cheytaan ngalawaay moytul topp iblis inna cheytaana kaana lirrahmaani asiya ibliis de mooy na boroomam te man ragal naa ay an yamassaka azabun min arrahman fa li lilcheytaani waliya dama ragal yàlla mbugal la nga mujj wey nekk taalibeb iblis farandoog moom ba faw papam ni ko araxibun anta an alihati ya ibrahim ibrahima ndax danga nga sib sama yàlla yi may jaamu man ba di teg kàddu yi ci ñoom Abraham lui répondit, Que la paix soit sur toi. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner car il m'a toujours accordé sa grâce. xoolal bi ka baayam ne wax jur ni maliyan dàq na la génnal sama kër yont yàlla Ibrahima ni ka salaamun aleyk yal na la yàlla defal jàmm sa astaghfiru laka rabbi ànd ak loolu lépp du ma dañ di sàkku ci sama borom mu jéggal la bu ko defee nga tuub innahu kaana bi xafiya borom bi day ku ma yëg la ku ma masa defal li ma koy sàkku ci moom la mais amis auditeur cette fois-ci Dieu subhanahu wa ta'ala n'exauça pas le vœu d'Abraham et c'est dans la sourate taw ba nous trouvons ce refus Lorsque Dieu s'adressa au prophète Muhammad, paix et salut sur lui, et lui dit, il ne convient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon pour les idolâtres, fussent-ils leurs parents, dès qu'ils voient que ces derniers sont des gens de l'enfer. Abraham ne demanda pardon pour son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. mais dès qu'il eut la certitude que son père était un ennemi de Dieu subhanahu wa taala il le désavoua Abraham était vraiment sensible et indulgent mbokk yi gàntal gi yàlla dana ko nettal yonent bi alayhi salaam ca taw ba laaye téeméer ak fukk ak ñett téeméer ak fukk ak ñeent mu ne que yonent yàlla Ibrahima jamani la roy ka day jéggalul woon papaam lu dul lu mu ko digoon bon nag maakaana lin nabi yeyul ci yow yonent wallazina amanu an yastaxfiru lil mushrikin wala ku gëm yàlla ngay ñaanal yéefér walaw kaanu uli qurba même bu doon mbokkam la lu mu nekk-nekk mbokkam bu ko leere nit ñi weddi nañu yàlla annahum ashaabul jahim safara lañ jëm waratu leen ñaanal wa ma kaana istixfaaru ibrahima li abi ñaan nga ibrahima doon ñaanal baayam nag dara taxul woon lu dul mawidatin waadaha iya lu mu ko diggoon rek waaye ba mu leeree ci moom annahu aduwun lillah keni sama baay bii noonu yàlla la te du dëpp dellu gannaaw tabarraa minhu ibrahima dafa dañ ci moom ba set wecc inna ibrahima la awaahun xalim ibrahima daal nekkoon na nit koo xam ni kii ku ñeewante la ku dënnirlu la ku lewet ami auditeur si Dieu subhanahu wa n'a pas répondu favorablement sur le cas du père d'Abraham sur le père de qui répondra-t-il favorablement si ce dernier ne croit pas et n'agit pas selon les exigences de la foi en Dieu subhanahu wa ta'ala mi bu fekkente ni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 أظل كالممدود ذيره مقصود ظل كالممدود ذيره مقصود أنت يا محمود من سيوف الله C'est même Abraham, paix et salut sur lui, l'ami de Dieu subhanahu wa ta'ala, voulut établir la tradition d'investir ses descendants à l'imama spirituel ou matériel, comme nous le faisons chez nous. Une fois le père fondateur d'une voie spirituelle décédé, le plus âgé des fils le remplace au khalifa, et ainsi de suite. Quand Abraham voulut instaurer cet héritage de l'imama selon la parenté, Dieu subhanahu wa ta'ala le recadra dans le récit coranique qui suit. mbokk yi yont yàlla ibrahima mii di xalilullah bis jéem na fexe ba bu fi jógee doomam doon na ko ci xilaafa gi ni ñu koy defee ñun fii xalifa bu génnee rekk doomam walla sëtam walla mbokkam mooy toog ibrahima jéem loola yàlla subhaanahu wa taala delloo sik déglul Le Coran dit dans la sourate La Vache, rappelle quand ton Seigneur éprouva Abraham de certains commandements et que ce dernier les exécuta à merveille. Le Seigneur lui dit, je t'élève au rang d'imam, de modèle à suivre pour les gens. Abraham lui dit, fais une tradition dans ma descendance, Le Seigneur lui répondit, Mon pacte ne concerne pas les injustes. mbokk yi yont yàlla Ibrahim yàlla nettali na suratul baqara isibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun yàlla nattu na ibrahima sant ka ay mbir ibrahima def ka na mu ko bëgge yàlla kontaan ci moom gërëm ka ni ka inni jaa'iluka linnaasi imaaman dama lay samp nga nekk royukaay nekk yilimaanu nit ñi xaala wa min zurriyati yont yàlla ibrahima ni ka defal bu ma fi jógee sama njaboot taxaw sama taxawaay donn ma xaala laa yanaalu ahdiya zalimin mu ne ka a ku juba di day du ma kóllërenteeg moom ci jox ko samay mbir di ko ko dénk abraham la leçon il il apprit que la grâce divine ne s'acquiert que par la foi sincère l'effort constant et le mérite mais regarde après ce recadrage la réaction d'Abraham lorsqu'il finit de construire la Kaaba sur l'ordre de Dieu subhanahu wa la vache rappelle quand nous fîmes du sanctuaire de la Kaaba un lieu de pèlerinage et un refuge pour les gens. Faites du lieu marqué par les empreintes des pas d'Abraham un lieu de prière. Et nous recommandâmes à Abraham et Ismaïl ceci: Purifiez ma maison pour ceux qui font le tour de la Kaaba, ils font la retraite et s'y inclinent et s'y prosternent. Bis Ibrahima jàngat na li ko Yàlla jubbanti mu sant kana tabax kër gi mu tabax kaaba gi waaye jàngat na ni léegi ndekete mbiru yàlla kenn du ko donn ci deret dañu koy donn ci pas-pas noona la defare kër gi yàlla ni nag def naa ko kër goo xam ni gii day nekk kaaraange ma sant nit ñi wattaxisu min maqaami min maqaami ibrahima musalla maqaamu ibrahim def leen ko bërëbu jullikaay ma sant ibrahima ak ismaila ni ko an tahira baytiya li taifina wal aakifin wa rukkaci sujud laabal leen sama kër gi nguur ngir ñi ciy tawaaf ak ñi ciy li'tikaaf ak ñi nga xam ni ñu ngi ñëw di ci julli di ci rukkoo ak di ci sujoot guddi ak bëccëg Rappelle, dit le Coran, quand Abraham implora Dieu. Cette deuxième imploration. Il dit, Seigneur, fais que cette cité soit un lieu sûr et accorde la subsistance à ceux de ses habitants qui croiront en Dieu et au jour dernier. Note bien que cette fois, Abraham a dit ceux de ses habitants qui croiront en Dieu et au jour dernier et non plus à ma descendance. Mais le Seigneur lui répondit, et même à ceux qui ne croient pas, je leur accorderai une courte jouissance ici-bas, et puis je les astreindrai au châtiment du feu. Et quel malheureux devenir! Sourate de la Vache, verset 125-126 mbokk yi yàlla Ibrahima jàngat na tabax na kaaba gi ba pare mu ngay mu ne rabbi jal haza baladan aminan yow yàlla defal kër gi mu nekk dëkk boo xam ne day am kaaraange warzuq ahlahu min attamaraat te nga wërsëgal ñi ciy dëkke meññiteef fii lépp luy bien matériel defal leen man amana minhum waaye nag defal ka ñi gëm ci ñoom billahi wal yawmil axir ñi la gëm gëm bis xoolal bi yoon waxul defal ka samay njaboot wa min zurriyati xaala yàlla tontu ko ni ko wa man kafara waaye même ku ma weddi nag Ibrahima fa umattiu qalilan danaa ko bànneexal tuuti jox ko poñetu àdduna bi thumma attaruhu ila azabin naar su paree nag ma jatanke dugal ko ci mbugalu safara wa bisal masir amis auditeurs de ce dialogue nous apprenons que Dieu subhanahu wa ta'ala donne ce monde au bon et au mauvais pareillement. Mais l'autorité spirituelle n'est accordée qu'à ceux qui croient et selon la qualité, la pureté de leur foi et jamais selon leur appartenance familiale. Est-ce que vous pensez, amis auditeurs, que Dieu subhanahu wa ta'ala accordera à quelqu'un d'autre sekil qu'il a refusé à son Abraham paix et salut sur mbokk yi Ibrahima alayhi salaam jàngat na ñu nit ñu jàngat jàngate ci ni àdduna bi yàlla da koy jox ñëpp ku ko gëm ku ko wedd ku baax ak ku bon waaye nag li nga xam ni moom mooy ndombal tànk ci wàllu diine ak pas-pas kooku moom yàlla subhaanahu wa du ko jox lu dul ku gëm te sellal ak ngëmam waaye du aju ci gii kër la bokk gii dëkk la juddoo bi jamono la juddoo mbokk yi ndax yaakaar nga ni lu yàlla gàntal xaritam yont yàlla ibrahim alayhi salaam dana ko defal keneen ku dul moom lu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu war sëgal nu boole ñu ci way dégg yi mën a topp loola yomb na borom bi yal na ko defal ya rasul allah ya habib Ce n'est pas tout, amis auditeurs, car Abraham, l'ami de Dieu, paix et salut sur lui, a essuyé un autre refus de la part de son ami sincère. Le jour où Djibril et Mikaïl furent envoyés pour punir les homosexuels et les lesbiennes à Sodome et Gomorrhe, ils passèrent chez Abraham l'informer. que Dieu lui a accordé un enfant de son épouse Sarata radiallahu après quoi ils lui dirent leur véritable destination Abraham alayhi qui était longanime ému et repentant comme dit le Coran Halim Awwah Munib intercéda en faveur du peuple de Lot mais la réponse fut sans appel Abraham lui dit Ne te mêle pas de ceci, car la décision de ton Seigneur est déjà prise, et un châtiment irrévocable s'abattra sur le peuple de Lot. mbokk yi yonent yàlla Ibrahim du yi rek la ko yàlla gàntal gàntalaat na ko bis Jibril ak Mikayil ak ña ñu àndal dañu jaar kër yonent yàlla Ibrahim fekk ñu nga jëm ca góor jigéen ya ak jigéen jigéen ña pour faagagali leen ca dëkku Luut ya di Sodom ak Gomor waaye nag ñu jàdd ñu santoon leen na ñu jàdd bégal Ibrahima ni ko yàlla dana may doom bi ñu paree ci loolu wax ka nag lii tax ñu jóg seen mission dëgg Ibrahim alayhi salaam yu jaadilu na fi qawmi Luut mu mu tinul nitu yoon ci yàlla Luut yi yàlla ne Ibrahima la xalimun awaahun munib Ibrahima dafa lewet lewet sawar ñaan yàlla te ku bëgg tuub la waaye ànd ak loolu lépp ñu ne ko yaa ibrahima arid an haza ibrahima génnal ci li bu ci sax jéem a wax innahu qad jaa amru rabbik sa dogalu boroom dikk na ba pare wa innahum aatihim azabun xayru mardud mbugal gi kenn mënul tax du dal ci seen kaw du dellu gannaaw mukk voici amis auditeurs en Lot alayhi salam le cousin d'Abraham paix et salut sur lui un autre exemple qui montre que Dieu subhanahu wa ta'ala ne se soucie point des liens de parenté avant la foi et la croyance quand les anges dont je viens de parler arrivèrent chez Lot sous l'apparence de très beaux jeunes gens le peuple pervers d'homosexuels les assiégèrent En désespoir de cause, dit le Coran, verset 80 sourate Hud, l'autre s'écria, ah, si j'avais la force de vous résister, ou si j'avais un appui solide, vous n'assouvirez pas vos désirs antinature sur mes hôtes. xoolal beneen misaal bu lay jàngal ni yàlla subhaanahu wa taala waaye pas-pas ak gëm ñoom jibril bi ñu yegsee ci yont yàlla luut bi ñuy ñëw nag ñu ngi ñëw ci melokaanu xaleel yu góor waxambaane yu rafet yoo xam ni kenn mësul gis taar bu mel na bi leen waa nitu luut yi gisee rekk ñoom ñëpp tàqalikook seen sago ñëw tëj leen ci kër gi ni faw rekk ñu joteeg xaleelu ganu luut yi yont yàlla luut bi mu demee ba amul pexe mu ne law na lii bikum quwa ay suma amoon kàttan aw aawi ila ruknin shadid wala ma am wéeruwaay bu dëgër bon du ngeen def mukk ñaawteef gi ci sama gan yi mais amis auditeurs c'est justement ce signal qu'attendaient Djibril et ses compagnons pour intervenir aussitôt ils lui dirent l'autre nous sommes des anges envoyés par ton Seigneur. Ils ne te toucheront pas. Pars avec tes disciples quand la nuit sera avancée et qu'aucun de vous ne se retourne pour regarder ce qui se passe derrière vous, à l'exception de ton épouse qui sera frappée par le châtiment destiné aux coupables. Cette menace s'accomplira à l'aube. Est-ce que l'aube n'est pas proche l'autre? Verset 80-81. suurat Hud mbokk yi fekk ñoom Jibril dañ leen waxoon li fekk yont yàlla Luut seedewul mbonte fu ñi rek bu leen leen def dara bon loolu lañ doon xaar ñu daal di ni kay nag yaa Luut inna rusulu rabbik ñun sa yonent sa ndawi borom lañ dunu ay nit ay malaaka lan lañ yasilu ilayk waxuma lañ ñun mais yow sax du ñu yegg si ci yow fasri bi ahlika bi qitaan min al layl bu bu guddi gi demee ba xaaj ba suuf sedd guy na nga génn dem yàq say nit wala yaltafit minkum ahadun bu kenn ci yéen gestu illa mraatak sa jabar day musibuha ma asaabahum mbugal gi dana dal ci kawam gi dal ci góor jigéen ñi inna mawidahum subh loolu nag njël rekk lañuy xaar pour mbugal leen ami auditeur kii espère pouvoir garantir à sa femme, son épouse, le salut, si elle n'obéit pas à Dieu subhanahu wa après ce qui est arrivé à l'épouse du prophète Lot, pensez-vous que ce que Dieu subhanahu wa n'a accordé à aucun prophète ni à sa descendance, il l'accordera à une autre créature? mbokk yi gannaaw lii nu yàlla nettali kan moo mën na warlul soxnaam ni que daa mucc daa tàbbi aljanna fekk soxna sa nanguwul jaamu yàlla toppul yàlla gëmul rawatina nag gannaaw bi ñu gisee lii dal ci kaw soxna yont yàlla luut alayhi salaam mbokk yi ndax yaakaar nañ ne lu yàlla mayul yonent yi mayu ko seeni njaboot dana ko may kenn ci mbindaafoon yi dul ñoom nu ñaan yàlla subhaanahu wa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 un malheur plus douloureux encore à Nuh alayhi salam. son fils aussi a été condamné mbokk yi lu gën a ti metti li dal yont yàlla Luut dal na yont yàlla Nuh mi bokk ci ulul azmi soxnaam ak doomam yépp taawam ñoom ñépp yàlla dafa leen jël tàbbal leen safara quand Dieu subhanahu wa ta'ala décida de, de noyer les mécréants du peuple de Noé alayhi salam il lui dit fais monter dans l'arche un couple de chaque espèce ainsi que ta famille sauf ceux d'entre eux contre qui le décret divin est déjà prononcé et fais-y monter les croyants or ceux qui croyaient en Noé étaient bien peu nombreux mbokk yi yont yàlla luut bi yàlla bëggee def tuufaan sant nga defaral gaal gi mu defar ko ba pare mu nekk nag yéeg leen ci gaal gi te yow luut yéegee ci min kulli zawjayni isnayni lépp lu ma bind rekk jëlal peer nga dugal ko ci gaal gi wa ahlaka ak sa famille illa man sabaqa alayhi al qawl ba mu des ci ñoom ña nga xam ni sama mbugal jiitu na ci ñoom dugalal ci gaal gi man amana wa ma amana mahahu illa qalil suratu hud mu ne ñi gëmoon ci yàlla loot tuuti nit lañu ci lu ëpp junni at yu mu woote Nuh alayhi salaam s'exécuta et depuis l'arche voguant sur les eaux déchaînées Noé aperçut son fils à l'écart sur la terre ferme. Il lui dit, c'est le Coran qui parle. Mon fils, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Ce dernier lui rétorque, non, père, je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera du déchaînement des eaux. Son père le supplie et lui dit, aujourd'hui, mon fils, il n'y aura pas de protection contre le décret de Dieu subhanahu wa tous périront, sauf celui à qui il accorde sa miséricorde. Sur ce, une grosse vague s'interposa entre le Fils et le Père, parce que Dieu voulait éviter à Noé de voir son fils broyé par les eaux. C'est ainsi, dit le Coran, que le fils de Noé fit partie des noyés. Sourate Hud, versets 42 bi nga xamee ni yont yàlla nuux dugal na ñépp ci gaal gi dugg nag tëj gaalam gaal gaa ngay daw fii maw jinkal jibaal ci duusu géej gannax goo xam ni mu ngi toll ni ay montagne yont yàlla nuux seen doomam ja fii maazalin mu nga mu nga beru fële mu wooka ni ko yaa bunayya kab maana sama doom daw sil nga yéeg ci gaal gi ànd ak ñun wala takun ma al bul dem mukk ànd ci yéeféer doom ja ni ko sa aawi ila jabalin yaasimuni minal ma mu ne ko papa du ma yéeg ci sa gaal gi damay dem yéeg ci benn ci montagne yee ngay gis su ma ci yéegee ndox mi du yegg si ci man bu ndox mi feree ma wàcc dellu sama kër waaye du ma dugg mukk ci sa gaal gi ndax gëw ma li ngay woote yent yàlla nu wax ni ko laa asimal yow min amrillah mu ne ko sama doom tey kenn du mucc ci mbugalu yàlla gi illaa man rahim lu dul ku yàlla yërëm foofa rek xaala baynahuma al mawj benn duus bu rëy ñëw dox seen diggante ndax yàlla yërëm na noox bëggul mu gis doom ji ni kër géej gi ndox mi di dammatee ak di ko lemat di ko di ko labloo fa kaana min al noona la labloo doomu noox muy mbartalu jëm safara suratu Huud laaye ñeent fukk ak ñaar ñeent fukk ak ñett amis auditeurs pensez-vous que ce que Dieu subhanahu wa ta'ala n'a accordé à aucun prophète ni à Abraham ni à Noé ni à l'autre il l'accordera à une autre créature que le simple fait d'être le fils de un tel suffit pour avoir l'immunité en face de Dieu mbokk yi ndax yaakaar ngeen ni lu yàlla mayul yonent yi du ibrahima xale xaritam ba du noox ulil azm du luut dana ko may kenn ndax nekk doomu diw walla sëtus diw walla xaritu diw rek doy na pour yàlla ni la lu la neex defal sama aljanna yi ku la neex tàbbal ci ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu boole ñu ci way dégg yi mën a topp

que Dieu subhanahu wa ta'ala dans la sourate Tahrim au verset 10 propose aux croyants la parabole de l'épouse de Noé et de l'épouse de Lot. Elles étaient, dit-il, mariées à deux de nos vertueux serviteurs, mais elles trahirent leurs époux qui ne leur furent d'aucune utilité face au châtiment de Dieu subhanahu wa ta'ala. On leur dit à toutes les deux entrer en enfer avec les damnés mbokk yi ngir kenn ku nekk jël ay matukaayam fagaru lu mu masa man moo tax yàlla tëgg léebu yi lillazina kafaru mraata nuux wa mraata luut mu wax yéeféer yëpp ak caaxaankat yépp ni leen seet leen ci soxna nuux ak soxna su ñoom kaanataa taxta abdayni min ibadina saalihin ñoom sama ñaari jaam yu sell ñoo doon seeni borom kër ci seen keppaar la ñu nekkoon fa xaanatahuma ñu wor leen wuuteeg ñoom ci pas-pas falam yugniya anhuma min allahi shay ñoom day ñoom seen jëkkër yi lañuy baax baax baax mënaluñu leen ci kanamu yàlla dara wa qiila duxula naar ma daaxilin dama leen wax yéen ñaar ñi ñëpp ñaari soxna yëpp tàbbi leen safara ànd ak ñiy tàbbi ci biir safara suratu tahrim laaya fukk et autant amis auditeurs la parenté avec un homme de Dieu n'est pas une immunité pour un malfaiteur autant la parenté avec un malfaiteur n'est pas une source de punition pour ceux de ses parents qui croient en Dieu et font le bien conformément à la fois en Dieu subhanahu wa je vais vous en une preuve coranique mbokk yi waaye jar nañu xam ni ni mu nekkee ni mbokkoo ak nitu yàlla nekkul kaaraange ci kuy def lu bon ak di weddi yàlla noonu itam mbokkoo ak ku bon nekkul ni faw kooku moom itam dañu koy soob ci mbonteefu kële mbugal ka su fekkee moom li muy bokk bokk ak ki yées moom mu ngiy góorlu di jaamu yàlla subhaanahu wa góorgóorlu di jëf jëf ju deppo ak pas-pas alquran wax na Dieu subhanahu wa propose aux mécréants la parabole de l'épouse de Pharaon qui malgré qu'elle soit mariée à celui qui s'est proclamé une divinité supérieure à Dieu subhanahu wa ta'ala Pharaon qui dit je suis le Seigneur le plus grand votre plus grand Seigneur Asiya, son épouse, s'était détournée des mensonges de son époux et de tout le luxe de son palais. Elle avait cru en Moïse, alayhi salam, et elle ne cessait d'implorer Dieu subhanahu wa en ces termes. Elle disait toujours, Seigneur, construis-moi une maison auprès de toi dans le paradis et protège-moi contre Pharaon et ses méfaits et protège-moi contre les injustes. Sourate Tahrim verset yi misaal mi mooy daraba allahu masalan lillazina amanu imraata firawn yàlla ni négal moo jox la misaal yéen ñi gëm ci soxna firawna si soxna asiya mi di soxna firawn mu ngi sëy ak ki yées ci ñi yàlla bind ndax kooku moo taxaw ni d'accord naa ni sax yàlla am na waaye nag même bu amee man may yàlla am ndax may yàlla ji gën a kawe ana rabbukumul aala maay yàlla ji gën kawe ci suratu naziat ànd ak euh, doole ji mu am ànd ak àdduna bi ka yàlla ubbi ci moom lépp soxna Asiya lànk gëm li mu gëm ak topp ay kàccam ci man may yàlla ji bàyyee ak lépp loo xam ni poñetu àdduna la bu ne ci biir palem ñëw moom gëm yont yàlla Muusa bis bu ne guddi aj bëkk mu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala di tinu ci yàlla ni ka yow rabbi ibni li indaka baytan fil yow yàlla sarax ma nga tabaxal ma kër ci aljanna wa najjini min firawna yàlla musal ma ci firawna wa amalihi ak ñaawuk jëfam wa najjini min al qawmi zalimin yow yàlla musal ma ci nit ñi nga xam ni lu bon kese la ñuy def lu jubadi kese lañuy def ay tooñi kese lañuy ñuy def soratu tahrim laaya fukk ak benn ami auditeur ami auditrice sois l'épouse de l'homme de Dieu que tu veux sache que si tu n'obéis pas à Dieu subhanahu wa le châtiment le plus féroce t'attend. Sois, amie auditrice, l'épouse du plus grand malfaiteur, et bien sûr qu'une croyante n'accepte comme conjoint qu'un croyant et vice-versa. Mais si par malheur tu étais lié à un malfaiteur, si tu obéis à Dieu, subhanahu wa ma chère sœur en islam, tu jouiras de la miséricorde de Dieu qui te fera entrer dans sa grâce et qui t'introduira dans son paradis mbokk mi sama jigéen nekkal soxna si nit yàlla ku la neex xamal ni boo jaamuwul yàlla subhaanahu wa gëmoo ko def lu baax mbugal kese moo lay xaar sama jigéen bu la yàlla nattoo sax nga xam ni yaa ngi sëy ak ku yées ci nit waaye yow yaa ngi gëm sa borom yaa ngi góorgóorlu ci jaamu sa borom yaa ngi góorgóorlu ci def lu baax xamal ni yàlla subhaanahu wa taala dalay faxas ba nga set tàbbal la ci yërmandeem yu rëy defal la xéewalam yu rëy ya tàbbal la ci biir aljan pensez-vous amis auditeurs que ce que Dieu subhaanahu wa taala n'a accordé à aucun prophète ni à sa descendance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 ne peut pas oublier ni omettre le cas de Moïse alayhi salam. Dieu subhanahu lui donne un rendez-vous au mont Sinaï. Le verset 143 sourate Al-Araf nous dit, Moïse se rendit à notre rendez-vous. Et quand son Seigneur lui parla, il demanda, Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Dieu subhanahu wa lui dit, Tu ne me verras pas dans ce monde. et pourtant convaincre. Regarde cette montagne. Si elle reste à sa place intacte, quand je me montrerai à elle, alors Moïse, tu pourras me voir. Mais lorsque son Seigneur fit semblant de se manifester à la montagne immense, celle-ci fut réduite en poussière et Moïse fut foudroyé. Lorsqu'il reprit ses esprits, il s'écria, Gloire à toi Seigneur, je me repens premier des mbokk mi fàtte yont yàlla Muusa ci gàntalu yàlla yi jekkul yeyul yàlla da ko jox ndaje ca tuuru Sinaay ba Muusa ñëwee yàlla ni li miiqaatinaa ca ndaje ma wa kallamahu rabbuhu yàlla wax ak moom Moussa tàggook saxoom sagoom ndax neexaayu kàllaama yàlla xaala rabbi arini anzur ilayk mu ne yàlla dama la bëgg gis may ma ma gis la feeñu ma ma gis la ci sa melokaan xaala lan tarani yàlla ne ka mënoo ma gis fii ci àdduna bi ci sama melokaan walakin undur ilal jabal waaye nag xoolal montagne bu rëy bii fa in istaqarra makaanahu fa sawfa taraani su ma ko feeñoo moom mu ni ring attan feeñu bi yow daamu mën a gis falamma tajalla rabbuhu lil jabal ba borom bi xoymetee montagne bi rekk tajalliyaat rek jaalahu dàkkan montagne ba tas toj tasaaroo nekk pënd wa xarra Moussa saiqa yont yàlla Moussa ni dal ci suuf xëm ah falamma afaaqa ba mu ximmalikoo nag qaala subhaanak tudd naa sag sel tubtu ilayka tuub naa jéggalu naa ci li ma lay wax may ma ma gis la wa ana awwalul muminin man day maa ngi feddali ni maay ki njëkk ci ñi la gëm te duma dellu gën a ami auditeur je ne vais pas non plus avant de conclure ne pas évoquer le cas de Jonas paix et salut sur lui, qui, comme dit la sourate Safat, fait réellement partie des envoyés de Dieu. Mais il tenta de s'enfuir dans un bateau rempli à plein bord, abandonnant sa mission auprès du peuple auquel je l'avais envoyé. Le poisson l'avala parce qu'il était coupable d'avoir quitté son peuple sans la permission de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et si auparavant il ne faisait pas partie de ceux qui glorifient Dieu, il serait resté dans le ventre du poisson jusqu'au jour de la résurrection. Versets 139, 144, sourate Safat. mbokk mi lu yëkkati suñu jataay te fàttaliku ñu yont yàlla yàlla wax ni moom la minal mursalin yonent la ma joxoon ko téere <laughs> waaye nag fàttalikul is abaqa ilal fulkil mashhun ba mu dawee bàyyi fa mission ba daw yéeg ca gaal gu fees ga nit ni day rëcc bàyyi na fa la ma ko santoon ci liggéey fa saahama fa kaana minal mudhadin gaa yi tegoo bant mu dal ci kawam rek ñu sànni ko ci géej ñu sànni ko rekk yeggagul ci ndox mi faltaxamahul xuut wa huwa mulim ponk lu jën ni ko patix wan yàlla ni fekk booba dafa am yeddaange yeddaange ci dem te man santuma ka ni kana dem falawla annahu kaana min al musabbihin su dul konteeg la mu nekkoon ci ñi may sellal lu jiitu bii jëf day la labisa fi batnihi ila yawmi yubaasun bon danaa ko téye ci biiru jën woowu mooy nekk bàmmeelam ba bis bi ñuy dekki mu dekki ci biiru jën bi suratu saafaat laaya téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñeent nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu boole ñi ci way dégg yi mën a topp loola yomb nag yal na nu ko defal ذلك الملعون الممدود ديره مقصود ظلك Je vais conclure, amis auditeurs, par l'avertissement que Dieu subhanahu wa ta'ala adressa à son bien-aimé, Habibuhu la meilleure de toutes ces créatures le sceau des prophètes et des envoyés le prophète Mohammed paix et salut sur lui pour que chacun de nous sache ses limites et que qu'aucun de nous ne dépasse ses limites mbokk yi dama yëkkati suñu jataayu tey ci fàttali la artu bi yàlla artu soppeem ba ki gën ci ñi mu bind ki mu def muy xatmul ambiya wa rusul yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ali fàttaliku lii ngir ku nekk ci ñun xam sa bopp xamit foo war a yem ba boo boobaa doo xëtt mukk sa daytal Dieu subhanahu wa ta'ala en parlant du profet Mohammed paix et salut sur lui aux mécréants dans la sourate Al-Haqq si le prophète Mohammed nous avait attribué la plus petite fausse parole nous l'aurions saisi de la main droite pour lui trancher la gorge et personne parmi vous ne pourrait s'interposer et le sauver verset 44 47 mbokk yi yàlla wax na ak yéefar yi waxtaan nag ñoom ci dëggug yonent bi alayhi salaam mu ne leen moom moomu ngay gis sama yonent la de sama xarit la mooy ki gën ci ñi ma bind waaye walaw taqawwala alayna baad al aqawil bu ma sosaloon benn kàddu boo xam ne santuma ko mu wax walla mu teppi benn ci li ma wax ah bon la axas naa minhu bil bon dama koy téye ci sama ndeyjoor bi summa la qataana minhul watin ni ko xattit ren di dagg baatam taqale boppam ak baatam fa ma minkum min ahadin anhu haajisin bu boobaa itam bu ma koy def loola kenn ci yéen du mën a dox sama digganteeg loola suratul xaq lay ñeen fukk ak ñeent ñeen fukk ak juróom-ñaar s'il en est ainsi de la meilleure des créatures le prophète Mohammed paix et salut sur lui lequel d'entre nous peut se sentir en sécurité jusqu'à dire des contre vérité sur Dieu subhanahu wa ta'ala et sur sa manière de gérer les affaires de l'univers mbokk yi su nekkee nii la yàlla wax ci yonent bi alayhi salaam nga xam mooy ki mu sopp mooy ki tax mu bind lépp mooy ki nga xam ni moom la tànn ci léppam wóolu ko ci lépp bon a kan ci ñun mooy am kóolute bu toll ni muy waxal yàlla lu dul noonu wala di wax ni nii la yàlla di doxale ci nit ñi fekk yàlla doxalewul noonu ami auditeur mon intime conviction est que ce que Dieu n'a accordé à aucun prophète ni à aucun messager il ne l'accordera jamais à aucune autre créature mbokk li ma gëm muy sama pas-pas bi wér mooy ni li yàlla mayul benn yonent mayu ko benn ndawam kooku du ko may kenn ak ku mu mënti doon ba àdduna di tukki nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu boole ñu ci ñiy dégg di mën a topp loola yomb na borom bi yàlla na nu ko defal. من يد التعظيم يحمل التكريم في صلاة الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله mbokk yi ñu nekkoon fii ci rajo senegal International àndoon ak sunuy mbokk Moussa Mbaye Mouhamad Chérif Diop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 أكوان مصطفى الرحمن Le message du Coran القرآن هاديا لله يا Une production de Radio Sénégal Internationale réalisée et présentée en français et en wolof par Mamadou Chérif Diop. كنت للأسرار كل